Vegas Vegas lay yam. ah loolu la jë waaw loolu la loolu la kii way di njaretaan. waaw wala waaw kay moom daf ne whatever happen war stay stay in Vegas. <laughs> waaw maanaam lépp loo xam ne nii xew na Vegas maanaam kattante yeeg sàcc bisu or yeeg ah, ah, ñi ñi esclave yi sol dàll mais yëmul Vegas ñiy tondi dàll ñu ngi leen di sinaab àdduna baa ngi ciy jot sàcckat yi yow yaa ngi leen di weer ci télé yi kattkat yi ñu ngi génn ci télé yi di dem ci dëkk bi di voyage kon xanaa yéen waree ba àbbani in Vegas bi moom xanaa kon affaire yi yemul Vegas nu mu demee noonu. li tax léegi dañuy def yi di génn Vegas. waaw li tax affaire yi di génn Vegas mooy Vegas journaliste ñëw na. ah. reporter yi ñëw nañ fenkat yi ñëw nañ sàcc bi taaj. Ah. kenn sàcc fa taaj sàcc bi ñëw na. Hmm. kon ken mënu leen contrôler. Hmm. nit ki mën na organiser rek mais bul xam ku nekk sa jikko bi ngay indi. xam nga li ma la wax kon wane ba xapanin baga su demee yeneen ci dëkk te parce que ah, ah, média bi moo ko yóbbu wala yeneen ak yeneen bu yóbbu ngeen sensé way woowu def ko waree fa happen in monde ah ah loolu kay doonatul Vegas waaw léegi nag ba loolu lépp xewee lan mooy réaction moo gét ci affaire ba loolu xewee Babacar diaspora woon na ma bul bul ëppal waaw ba loolu xewee Babacar Diaspora woo na ma. Mhm. bi ma woowee passé na ma moo géet waaw mais moo géet ni ma waxee man neexu ma. très bien loolu laa bëgg nga leeral maanaam dañuy leeral rek xam nga leeral ak yàq deru nit bokkul de. man leeku ma deru kenn man du ma yàq deru doomu aadama loolu laa bëgg nga leeral rek man du bu dee wax man dinaa wax li ci des lépp. moo géet woo na ma damay waaw moo géet woo na wax ma ne ma. man xam man man samay damay fàtte anyway mais wax na ma ne ma léegi yow lan nga bëgg ma ne ko man li ma bëgg carrément moo doon ba fi Tange nekkee ñu leeral ko bala muy génn dëkk bi dafa bàyyi ba affaire yi siiw mu may door a woo ci loolu. waaw parce na yàgg naa waaye yàgg naa topp Babacar mu wax na ko. Mhm. mais yëgoon na ko mais waxu dara ba affaire yi siiw la may door a woo. waaw loolu baaxul di mu naa ah, ma loo bëgg xëy na moom da doon xaar ma ne ko xaalis laa bëgg man soxlaw ma xaalis man li ma yàlla jagleel li ma yàlla jagleel man maa ngi sant yàlla waree fa happen in waaw man kenn du ma jëndee xaalis noo li ma yàlla jagleel laa soxla soxlaw ma leneen très bu gaa yi di xalaat waree fa happen in kii del ma hmm. yàlla moom bu fekkee man déggool ba tey li ma laa wax de hmm. man ñiy wax di yàq man li jëntiwuma leen nañ wax lu leen neex ndax fii ku nekk am na lu loo day. soo ma di wax wootee dégg naa sax man maa dégg yow waxoo ma man maa dégg sama bopp rek moo ba mu wootee appel boobu noonu noonu noonu noonu ngay wax ni mu waxee yow neexu la waaye moom tamit ni nga demee ci télé bi wax moom tamit neexu ko. parce que neexu ko waaw looloo tax mu woo ma ko moo moo ciy feeñ. maanaam duñ wax daa ñàkk kese mais dañ naan moo géet foofu la xew waaw dañ naan moo géet dañ naan événement moo géet mais li tax moo tax normal yéen ñaar neexul kenn yow fee neexu la moom fee neexu la noonu la dem waaw c'est normal c'est normal c'est normal ñu tudd turam parce que moom moo organiser événement mënul contrôler nit ñi très bien très bien te kenn du wax ni Taj dafa sàcc Amina mm-hmm. ci ci plage yu Las Vegas bi dañ naan événement moo géet parce que événement am la xewee mm-hmm. man waxuma ko pour yàqal ko deram wala pour yàqal ko non aw ma jot boobu. Mhm. fii ku nekk yàlla lu la jag yag jagleel sa àdduna di ko jot di nga ko lekk mhm. balaa ngay génn àdduna. Mhm. te soo yóbbu sa bàmmeel yóbbu fa lu leer tey bu ma yeewee bàmmeel li ma waxoon ci tâche laay delloowaat. ba ma woowee wax ma lan nga bëgg man lan laay bëgg li ma bëgg moo bëggoon mu leer balaa tâche di génn dëkk bi loolu rëcc na ma lan laa ci bëggati. du xaalis laa lay wax ah, moom laa bëgg ndax soxla ma xaalis. deux millions du tax ma jaay sama ngor wala leneen. Mhm. ndax man maa ko mën a liggéey te liggéey naa lu ko ëpp am naa valeur or yu ko ëpp. ba ah, mhm. ba ba Las Vegas bi passé sama yaay yu ne naa ko or yu bari yu ma koy may. dégg ngeen man damay may sama yaay or man du ma àbb or. dégg ngeen loolu ba tâche boobu passé tâche mu ngi yónnee ay nit. naan leen wax leen Amina dafa àbb or yi kim ko àbb mu sàqal ko pexe moo tax ma ñëw ne tâche moo ko sàcc tâche yooyu loolu yëpp def na ko man àbbuma mhm. or yor dama ko jënd. man maa ko liggéey. ba ma woowee di ma wax loo bëgg xëy na da doon xaar ma ne ko xaalis laa bëgg pour noppi noo ma noppi moom parce que dama bëgg xaalis wala bijou dama bëgg wax pour ñëpp xam ne Tange du journaliste sàcc la. non Tange man mii sax maa ko mën. bu mag la. waaw. man loolu moo taxoon may wax pour nit ñi xam bañ a naïf comme man li ma daloon ba ma def sama bopp nii fi ma nekkoon sàcc amu fa naka la yoo sàcc bu gën nganda ndayam mu ngi fa. Hmm. bàyyiwuma ci xel xalaatuma ko loolu laa bañ mu dal keneen. Hmm. Hmm. mais du question noo bëgg or wala dama bëgg xaalis dara tiitalu ma lu ma yàlla may moom laay suturloo soxlaw ma dara duma ma kenn du ma cogg kenn pour dara. loolu baaxul la xanaa xamoo moo xamoo lii leen dal nii lépp lépp lépp dunguru moo leen ko yóbbee topp ci ginnaaw nit dunguru man xam man ci jigéen ñi lay commencé. kuy sey chaque jour ma wax ko ngeen di dof doflu chaque jour ma ko ngeen di dof doflu Sénégalais yi ñemewul nday dëgg kuy sëy ak ku sëyul bokkuñu ku am jëkkër di fa def deux mois trois mois wala ñibbi toog sa jëkkër dañuy waxante dëgg xale yi nga xam ne sëyuñu ak kuy sey bokkuñu góor ñi nga xam ne dañuy dunguru yàlla jox leen ay xuur ñuy koddal nan dem wutal lu liggéey jàpp ko moo gën di fomp ay dàll di tonni ay dàll bu dayee nga koy làpp wala topp ci nit ki ndax xaalis seetaan naa vidéo boo xam ne moo gën dana leen xaare bu ma demee ba yoratuma xaalis yéen ñëpp da ngeen di def bàyyi ma vidéo bi maa ngi moom dafa ñaaw dunguru baaxul lii loolu noonu moo gën wax déglu ma loolu noonu moo gën wax dëgg la am na fa ma ko man sama ki jur sama doom milliardaire la woon Arabie Saoudite ki jur dégg ngeen ki jur doomam milliardaire la woon kon moom am na droit am seen boo xam ne valeur deux millions la. man maletu or laa yor li ma ci or Arabie Saoudite ba ma amee dix neuf ans vingt ans dama ma amee vingt deux ans laa am doom maletu or laa ay kilo moo ci nekk sama jëkkër homme d'affaires la woon. waaw am na or yi fi nekk maa ko jëndal sama bopp am na yoo xamante ni moom moo ko jëndaloon. Mm-hmm. Mm-hmm. milliardaire la woon man dama amoon chauffeur. Arabie Saoudite am ñaari jànq sama jëkkër may gis. ay nit di ñëw mu leen di jox ay enveloppe ma naan ko lii di ko ko tere te ñoo te ñooñu léegi ànd ñu moo tax moo gét loolu mu wax am na ci droit mhm. xaalis lañ lay toppee boo amatulee dootul leen gisati mhm. Mhm. kenn dootoo ko gisati boo nekk ci sukuraat sax doo leen gis man namuma xaalis yàgg naa gis milliard ndax sama jëkkër milliardaire la woon Arabie Saoudite ku ci nekk xam na homme d'affaires yi ñaata xaalis lañ daan meek dégg ngeen loolu gars yi dégg ngeen loolu man man du ma dungaru kenn la xaalis mais sa jëkkër naar la woon wala. Sénégalais la mu def naa Arabie Saoudite 30 ans presque. Sénégalais moom est-ce am ay milliards noonu lu mu doon liggéey. la homme d'affaires la woon ci jamaa la nekkoon ak ci ay or. ah eh, Sénégalais yi de moom seen i milliardaire moom yàlla ñu yàlla ñim ko may bëriwul de. barki yàlla ndax dañoo iñaanante seen biir quoi. <laughs> kooku ba affaire bi amee sama ex jëkkër boobu woo naa ko. Mm-hmm. mu ne ma bu ragal bu tiit moom parce que seetaan na li xewoon ci net bi may wax ak yooyu yëpp seetaan ko ba woo ma wax nañ ci yooyu kon man awma dara lu may ragal wala lu may tiit. Mm-hmm. Mm-hmm. soxloo ma xaalisu kenn. soxloo ma ku ma fay. du or du xaalis du dara dama bëgg xam yee sénégalais yi li def seen bopp que ni li kuy feeñ télé rek amul droit sàcc non non. sàcc la man maa ko wax. yow ma xëyam dinaa ko wax sama bàmmeel dinaa ko waxaat. waaw ba pare di yàq katu der teg ci. laa ilaaha illallaah li muy def moo raw yàq der. non dégg naa dulkat bu mag la dafa dégg naa dafa dafa. li muy def laa la wax moo yow rek ndax yàq der weesuwul nga may laaj man moo gën fan la jëlee xaalis li muy liggéey xaalis bi muy pasa pasaree. liggéeyu ko moom loolu lañ tëdd gis nga diaspora li may wax ni enregistré leen ko tëj bu dee yaa ngi may seetaan Babacar diaspora Girif Darmanko moo ko dugal ndax baaba Babacar Diaspora deful dara de ba nekkee ci vidéo bi man la woon TikTok ak boos Babacar Diaspora beneen téléphone la doon woote dégg nga ma beneen téléphone avant muy woote appel bi Girif xam na ne Babacar Diaspora mooy woote de rek mu njëkkantuñu nañu mooy woote de amul fu mu dëkk moo gën da ko daax xaaral ma jël ko mën lay wutloo kër ne ko taj def ko haut-parleur xoolal loolu man tamit matin bi enregistré parce que duulkat la Girif day wax di wet noonu koy gisee biir bi noonu di oval noonu mel ne saakuri paas dafa duul ba duul yi dajaloo gonfale ci biir bi moo war gii bi gonfale noonu boo ko gisee buy dox day mel ne xarum tabaski parce que duul yi la léegi mu def haut-parleur Babacar Diaspora ñuy wax waxu néeg xam nga Babacar Diaspora lan moo ko war a yóbbu Atlanta waaw parce que ba mu joteeg moo dañ koo conseil ne ko maanaam chancel état chancel état lañ ko wax léegi xalem nekkoon ci Atlanta mu ne dinaa woo girif darman ko ndax moo moo dëkk Atlanta mu woo girif di ko wax loolu pour li jënd ay situation girif naan amul fu mu dëkk amul kër yaa ngi dégg. wax ko ci appel bi ñun ñi sax la ko wax. léegi Babacar Dias Koda mënut am kër sax Amérique. parce que moom visa la yor de dafa ñëwoon ci ay mission mënut a liggéey Amérique kon Babacar Dias Koda deful dara maanaam damaa bëgg mu leer ne wax ji lépp lépp lépp girif darman ko la mooy duulkat bi mooy fenkat bi mooy naafeq bi te nag day wax di wedd de. moo tax ma koy enregistré bu duulee rek ma ne ko girif mu ne ma ne ko taj déglul yaa fi duuloon lii mu mer xam nga kuy duul nga koy tegal ay audio day noppi bu duulee léegi man xamal laa lay ñaan say duule man du ma faral girif du ma faral kenn mais baalal baalal ko rek baalal ko duul kat la de amul baalal waa léegi baalal ko parce que tànsa ngi ne moo ko dàq duul te mu ngi ne yii girif amul morom de maanaam <coughs> ah, xam nga ñoom bokkuñu maanaam girif duulu pet lay duur maanaam professionnel la ci duul benn bis xam nga nan la def ma wax loolu gën a garaw live boo xam ne 700 personnes ñooy seetaan moo yàqu deru moo géet naan moo géet amul këyit mun ta ñibbi Sénégal gaa yaa ngi nii ndeke moom mi ngi ci live bi te ko ndax xam na xam ne duulkat la mais dafa defaat ci directu TikTok mu naan moo moo ko baax la bu ma ko yéenee lu bot fekk ne gaa yaa ngi commenté ne ko xanaa yow yëgoone woon Adama direct la la defoon fee bu may woo di saaga rek xoolal loolu xoolal lool lan moo ko gën a garaaw direct laa ko def direct appel muy wax rek te yëgul ne gaa yaa waaye léegi kaay ma wax xam nga nit du ñàkk défaut mm-hmm. doomu aadama kenn matul waaw ñun ñëpp xol lañu yore yàlla moo yorul xol dëgg la yàlla mooy kenn moom kese moo ñu ñun ay jaam kese lañ dëgg la kenn matul aha léegi danga koy baalal girif daanañu noonu rek gis nga jabar ji mer na ba yow ku ñàkk jom nga nii audio jabar jaa ngi nii xaaral ma tegal la ko ndax xaaral ma dolli audio jabar ji parce que une minute 34 moo jot ci live bi day dagg mais dama koy commencé waat yaw pareegu ma si yow. <laughs> jabar jabar ji sax daa xam ne dul kat nga mu naan ko ñàkk nga fay la lii ku ko sa jabar wax war ngaa xaru déglu leen da koo effacé woon de ma fexe ba lijjanti audio bi da koo dindi woon story la ko defoon gaaw effacé ko ma ne ko xaaral ma ñëw ngay def dollu professionnel ngay waxal déglul jabar ji yow parce que yow doo kilifa yow doo kilifa si boppam te nga laaj bi rek te. jabar ji. ndeysaan. yow yaay parce que yow doo kilifa yow doo kilifa si boppam te nga bi rek jabar ji sax xam ne ne dunkan la jabar ji da maanaam jabar ji maanaam ndeysaan méritowul jëkkër ju mel nii mais loo ci xam loo ci mën. mais mais nattu rek doomu aadama doomu adama aadamoo. Ah. doomu aadama matul doomu aadama matul. ndeysaan du kilifa la ko jabar ji wax doo kilifa. <laughs> Oh, moo lii dafa ñaaw barki yàlla sa jabar tiim la naan la doo kilifa lii lépp moo ko dugal boppam. waaw lii lépp moo ko teg boppam bu téye woon lamiñ bi toog ci li mu war a toog kenn du ko yóbbee ci lii. <laughs> mais nit da nga dugg ba dugg foo xamante si nii lii lépp moo ko yóbbee boppam lii lépp. léegi nag euh, Amina. Hmm. Euh, euh, treize secondes moo ci def live bi mi ngi dagg treize ma commencé waat ko jëlaat la treize secondes moo ngi nii sept six cinq trois deux un maa ngi. bongomaan bi ñëw fekk taaj jëw na ko déglu ma. fekk taaj jëw na bongomaan bi wax na ko lu ko lu ko neex. bongomaan bi ba mu ñëwee cent dollars la yëkkati ne ko taaj am maa ko may ba taaj na ngoo xaalis bi man damaa tiit. ok léegi sama demande mooy biir kër gi. bongo man ba dafa daan fanaan wala daawu fa fanaan. musu fanaan dëkku fa. bongo man bi fanaan ci biir kër gi. nee naa la man. Mhm. Tange ak yeneen ñaari nit duma tudd benn tur. waaye ay góor xam nañ ay góor ay ay góor waa ay góor lañ. yow rek yaa fa doon jigéen benn bi couple la de defe naa benn bi góor individuel benn bi couple la. léegi mooy wax ñaari góor ak benn couple. waaw benn góor ak ñaari ak benn couple benn góor maanaam man Tange benn couple couple la kon benn lañ. ak ak keneen. dama laa laaj nga ne waaw ay góor la ñaar tey nga ñëwaat ne couple nay leer. non non couple la couple la. ah. waaw couple la. ak ñaari góor muy Tange ak kooku ak man jigéen. couple bi góor la ak jigéen. léegi couple bi ñoo daan bokk chambre. waaw nga bokk chambre benn la. yow ak Tange wala yow kese. man kese man lan lay doyee bokk ak Tange chambre doomu saram ndayam jooju. lan lay doyee di ñëpp ndayam bokk ak moom chambre. ak kartu ndeyam fële ban sambut lu may dayee di bokk ak taal sambut kooku nga xam ne ñu fay diiñ ay góor jigéen nan lay kattee ndeyam moom sambut mel ni ku xóoj man loolu yóbbu ma fa événement moom fa yóbbu barkeel léegi daal Amina ah foofu léegi daal yow daal fi mu moom rek nga fa nekkoon nga ne daal moom moom taaj daa moom ñoo bokk néeg ñoo astafurlaa ñoo dende néeg ah! <laughs> yow wuy ma fii yow <laughs> ah. went. Ah, ah, ah. Adamo ñëpp par xoolam déglu ma yow. bu yaay woon. yaa ngi tax ba may juum yaa ngi tax ba may juum taaj ñoo dende nekk. yo Adamo yow eh. Adamo ma léegi reetaan indi ma fi de yaa ngi may reetaanloo nag. oui ma léegi ma yaa ngi may reetaanloo léegi reetaan indi ma fi. mais kon kay taas dóor na. nee <laughs> na. waaw gën na amul problème amul problème. alors réew nga dama ne Tange doo dend nekk. Mm. yow fi wax bokku nekk moo tax ma ma kii mais Tange doo dend nekk. Mm. Tange tekkuñu dara moom audio ba ko waa Sénégal wax wax na ko nee na moom mm. xamuma xamuma couloir lañ séq xamuma soxla ma sax Tange man soxla ma soxlawu sax Tange nag. <laughs> non dëgg la de. waaw ñoo dend nekk. man ak Tange ci kaw man ak Tange ci kaw. am na euh, benn couple bi moo jël benn néeg bi ma ta euh, Tange ak man sama néeg ñoo denn néeg Tange ak couple bi ñoo jàkkaarloo néeg waaw. waaw léegi yi comprendre na gars yi fi mu ay réer nga leen def nii rek. waaw xam nga animation bi moo neex. waaw yow da ngay animé man animé wu man dama dañ maa sàcc maa lu ma na xarit di yee ñeneen ñi pour environnement yi muy fréquenté ñu xam ne moom sàcc la du journaliste c'est un voleur. ah léegi yow boo doon yee boo doon yee ñeneen ñi tey ji loo leen di conseil loo leen di wax maanaam ci lu. pour ñu moytu ko ñu bañ a wóolu nit ku ñu gis nit muy génn si télé bi xam ne foog ne kookoo baax. Mhm, mhm. du question da ngay génn si télé bi et que nit ku baax nga non non lool laa bëgg ñu yeewu ko pour que environnement yi muy nekk. ñu may ti mhm. ko man soxla ma or. Tange bu génnee 3 kilo or wala mu génnee waat lam bi ak jaaro bi man dama ko naan jëlal. mais dama bëgg nit ñi yeewu xam ne Tange tàcc la. moom ñaata der la fi yàq. balaa may dee nit ñi naan lu tax doo ko suturaal moom ñaata der la yàq ñaata mannequin la yàq de seen der